3S Pro. jërë ngeen jëf mbokk internet seen lamb tv ñu ngi amaan mbégte bu baax mbokk foo ay mën a ne si àddina bi ñu topp à seen lamb ñoo leen di kontaane di leen jaajëfal di leen ñaanal yàlla suñu borom defal leen jàmm te di ko sàkku comme ni nga ko diggee rek équipe yëpp macha allah chaque jour dañuy xool actualité ñu siy dox hmm, dañuy xool li nga xamante bu ñu ko présenté di ngeen am satisfaction totale mbokk ñu def suñu kenn laay kàttan dem jëli leen loolu ku nekk na nga xam ne actuellement nii moment bi ñu toll nii euh, kii di njagat doole moo li nga xamante ni mooy bësu face to face bi démb foofu sa la 2STV yi macha allah gis ngeen diggante ak Boy Jaxaw yaakaar naa face to face boobu boo na si face to face yu dàq si face to face yi ak ama neex ak ñaabu ndaw ñaari face to face yooyu bokk na si face yu ma gën a neex démb foofu nga xamante ni mooy 2STV waaye nag si biir face to face yooyu dañoo ñëw tey eh, jël kenn si ñoom ki nga xamante ni mook booy jaxaaw wéccant nañ ay kàddu waxante ñoom ñaar muy njaga doole macha allah mun ma ko sax xool ndax su ma ko xool dafay retaan moo tax mun ma ko xool moom la ñu mbokk yi eh, bile Claf nan la ko fas yéene avorté parce que premier combat mook Doudou Sané dafa avorté woon kenn xamuloon lan moo tax loolu bu ñu waxtaan si ak njaga doole waaye a Fass gis ngeen def na du yàggul dara sorti foofu sa Lutte TV ni géejawaay moo ko moom moom géejawaay nee na Jackson bu d'accordee nañ ko jox avance am tey jii tey jii mu yóbbu fi nga xamante ni mooy Fass waaye jërëjëf Cheikh Katal Pilar ah eh, Cheikh ki nga xamante ni mooy Rama Badiane ah, Rama moom suñuy soxna la ñoo ngi koy kontaanee foofu géejawaay Kos monsieur Kos wala monsieur Ndiaga wala monsieur le maire yow yow est-ce que loolu fal kii loolu noonu porte-parole. nuyu naa la ziar naa waaw maa lay fay bu baax a baax sëriñ maa lay bëggee de. voilà di bëggee gars yi seetaan yëpp. waaw di bëggee abonné di ziar ñëpp dañ jox seen wàccuwaay ah. ginnaaw bañ sant yàlla julli seen bi sant suñu ñaari waajur. di sant suñu Serigne Serigne Alioune Maana di ñaan yàlla Cheikh Mokho Serif ba yàlla bàyyi ko fi lool. di ñaanal yàlla waa Ngumba Ngewul ñëpp. waaw di ziar tamit waa Daaru Diop. dama leen di fàtte mais ñooñ ci kër gi lañ bokk mhm. waa Daaru Diop waa kër Cheikh Makhtar Diop dama leen di ziar bu wér-wér leen mhm. jox seen wàcc waay di ziar seex maxet sama xarit waa di ziar tamit waa kër Cheikh Saad bu Diop mhm. di ziar ñoom taalibu Diop ñoom di ziar waa Ngumba ñëpp di ziar waa wa waa waa waa kii di ziar waa Nguraan di ziar waa kër Cheikh Saad bu Diop borom Masaar ngi gis di ziar waa Ngaay fu su mel ni waa Touba kan seen ñett fanu baraxlu yi talaata bi paase la woon demoon nañ fa lépp luñ fa waay ñaan rek dañuy ñaan yàlla yàlla yàlla nangu ñaan yëpp waaw di ñaanal yàlla xalifa ba rek suñu maam suñu papa la suñu lépp sëñ Fallou Kane yàlla na ko yàlla bàyyi bu mu gudd fan gudd fan lool waaw di ñaanal yàlla tamit njabootu lay kan gi su mel ni sëñ Cheikhouna Kane di ko ñaanal yàlla tamit yàlla bàyyi ko fi loolu suñu xarit la suñu lépp la waaw di ñaanal yàlla sañ Ibra Kane le maraw de la ñu naa ko seex ndigal moom tamit di ko ziar di ko jox wàcc waayam di ñaanal yàlla tamit sëñ Mamor Kane borom xaas waaw di ziar tamit sama gars yi ku si mel ni Talla Diaw le grand commerçant sama xarit la sama lépp la di ko ziar di ko jox wàcc waayam baax a baax a baax di ziar ma jaw borom comprimé xar yi maa ngi koy ziar di ko jox wàcc waaye ma yow sama lépp la di ziar na suñu grand góor ak góor a jaw borom jaw koko kooku bu neex bi nga xamante ne moom day am ay ñama-ñama si biir kooku pin pin kooku moom kenn du moom si dëkk bi quoi di ko ziar nag bu ko jox wàcc waaye mu wër di ziar tamit ku si mel ni may sa sant yàlla boutique suñu grand la suñu lépp daf ñuy jàppale rawatina xaarim jaañ mu yaay seen dukkure suñu mag la suñu lépp la suñu mbokk taaliba la suñu kilifa la daf ñuy jàppale du ñu taxaw fépp mosuñoo bàyyi di ziar ku si mel tamit mu Mourtala Seck borom ñoo lànk kooku moom sama deret la quoi di ziar tamit di ko ziar seen waa gàllam yi nekk Touba ñëpp di ziar ay soxnaam waaw di ziar yaayam di ñaanal yaayam yàlla bàyyi ko fi lool ba suñ kanam kanam kanam waaw di ziar tamit ku si mel ni tamit suñu papa El Hadji Omar Ba waaw mooy président AMS président association des maires du Sénégal moom mooy maire la Ndiop suñu papa El Hadj Omar Ba dañ lay ziar dañ lay jox wàccuwaay di la woo si combat yi nga xamante ne lañ dëgmal amuñ sa fay ku si mel ni Pape Fall ñëpp kon koo xam papa kuy sama séedee sama lépp sama xarit la di ko jox wàccuwaayam wërëwër di ko woo moom mafia bi ñoom bari ñoom DJ Zo Xaadim Mar Yaasin may may sa bige Mar waa mafia bàyyiwuma kenn. maa ngi leen di woo di leen ziar leen jox seen wàccuwaay bu baax baax di nuyu nag sama waa koñ quoi waa damay nuyoo rek voilà damay maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi nuyu sama waa koñ di ñaanal yàlla sëñ Fallou sëñ Fallou Billy Dio anniversaire bi dimanche la waaye koñ bi tey ñëpp génn génn gars yi feete ko affaire bi jaar yoon di niyaar di nuyu sama benn xarit ki ñu naan dofu bàlla dofu bàlla sama doom ndey la day sonn si man di nuyu sama waa garage di nuyu waa Kër Ndiaye Lo di nuyu waa Fatick aw ma seen fay di nuyu waa Diouroup ñëpp ñoo xamante ne yaa ngi toog ni ma ñaanal Ndiaga Dolé Ndiaga Dolé mu ngi lay nuyu. Mhm. na solo. yaakaar naa nuyoo bi yëpp yaakaar naa tiir rek a ko waral parce que da dugg si classe bi nga xamante ñu bëre joxoon nañ la favori mais sa diggante yaag Dour Sané ñu bëri dañoo xaw a waaw tiitaat si yow ñu bëri dañu jàpp ni sax Ndiaga parewul moo waral sa diggante ak Dour Sané nga def prétexte boobu lan damaa pare fépp de <laughs> billaay ak maa pare yëg na nit ñi nag kenn ku na tay sa xalaat ngay demee quoi mais njaga moom leer na ko ni pare na ndax ku toog plus de cinq mois di rey sa bopp di entraîner di def li nga war def lépp lépp lu mbër dem nga koy def combat bi des une semaine ñu gaañ la gaañ boo xamante ne xamoo fu mu jógee mënu la mënoo si dara suñ borom nag lu mu dogal si doomu adama da nga koy nangu quoi mhm. loolu la rek mais du saana xam na ne maa gën a pare foofu maa gën a pare mille fois. Mhm. kalaaf bi gars yi fi nekk yëpp maa la gën a pare. Mhm. ndax kalaaf maa la gën a soxla de. Mhm. ndax ba ñuy soog a taxaw kalaaf bi ne woon naa ne kalaaf bi sama yëf la. te la ma waxoon noonu tey fa gën a taxaw nag. kalaaf bi sama yëf la te dama koy jëli bu soobee yàlla. ndax lan lan moo tax nga wax loolu si ay moromu góor nga bokk ak ñoom si benn benn langue nga ni kalaaf bi sa yëf la li nga gëm la sa doole nga ko teg mystique nga ko teg wala si loo ko teg. waaw lu ma gëm la gëm ni instant man kalaaf bi mooy sama dernier chance ci làmb. Hmm, ah, kon xam sama bakkan laa ci teg. yaa may dégg. kalaaf bi boo gisee tey ni may waxe hmm. li may jëfee moo ko ëpp. Hmm. mais nan ko. waaw demaguñu gaa gisagu ko maanaam. mais xam nga ni may waxee samay détermination laay waxee. lu ma gëm laay waxee. waxee ma wax boo xamante ne damay ñëw ci làmb ji di muusantoo kenn. xalaatuma loolu ci làmb. ay ay ay billaay wallaay wa loolu xalaatuma ko ci làmb. ni ma waxee nii. li may jëfee moo gën a foor ni may waxee. Mm-hmm. ndax li may daj entraînement maa yàlla ñoo ko xam quoi. Mm-hmm. teg sama yaram ay coono yu méttee métti métti métti. Mm-hmm. kon du ma ñëw si benn combat di am kenn ku ma siy xalaat wala kenn ku ma siy négocier. monsieur si biir loolu yaakaar naa nga am boo jaxaaw mi nga xamante ni dafa jóge si defet digganteem ma garga yow amagoo point moom aussi amagul point yéen ñaa ñëpp ngeen di doxee zéro point combat bu mel noonu nan nga ko fas yéene apporter Ndiaga. waaw combat bu naa ne moo si gën xaw a métti. ngay bëri ak mbër boo xamante ne daa nekk si kalaaf jóge si defet mm. day diis buy ñëwaat si yow. waaw mm. ah, mais man xam naa ne bu ñëwee tamit day daanu waat de. ndax lan nee nga de mooy sarax bi fan nga teg moom mooy saraxu galaa bi ndax wax ju wax ju rëy nga foofu. waaw mais tamit xam nga tamit loo gis dafa am ay normes ah booy jaxaw ko xool xam ni tamit moom parewul quoi. lan moo tax parewul jël non daa parewul. parewul pour kalaaf bi kalaaf boobu noonu mun na si tey jii mun na ci am tur boo xamante ne. man moom ko que gërgëree daan na ko man dama koy daan xëy na nag duut saane mun naa dem li jënt boobu si duut saane ak <laughs> mais man moom dama koy daan li ma ko wax leer na ko de yow mais yow mais yow du dégg baax di wax rek instant moom comédien la la jàppee sax dafa la bëgg bàyyi wax ji ngay wax rek di wax ni ba ba jour la moom carrément classe bi dugg si pour di si am ay défaite rek. waaw mais man li may wax dama koy jëfee ndax fi mu dugg baaxul fi mu dal moo baaxul moom waaw ndax wax naa ko démb nee naa ko man ndox mu sedd bi dama ko bëggoon mujjee voilà moom laa bëggoon mujjee quoi far yàlla def affaire yi am ba moom njëkkee ndox mu sedd bi. Mhm. waaw ku ne xam na ne Garga de ndox mu sedd la njëkk laal des na ko yeneen ndox yoo xamante ne mooy loolu mu ngi si affaire yi. affaire yi nag kenn ku si ne tey ak sa dëgër rek fi mu toll si yow mais wax ji de question. dañ leen di juge système wala lii wala laa. Mhm. ndax ñun ñëpp ay nawle lañ. Mhm. ñun ñëpp tamit ay doomu Sénégal lañ ko xasante wuñ. wala kii wuñu signature nag kenn ku ci ne tey am mun nga génn ay mots yu la neex pour teg ko sa kaw adversaire mais après bu loolu jeexee yéen a bokk nday yéen a bokk bàyyi mais ndox mu sedd boobu noonu noonu li ma ko xam na ko de. non parce que moom message li nga ko wax sax dafa ko jaaxal moom ay retaan la ko def. non moom bu retaanee tamit bu wéetee dina xamante ne moom dina xam li ma ko wax dëgg jur. booy jaxaw. non maa ko mun. déedéet njaga. bu la yéen ci yàlla bi ku dul booy jaxaw maa ko mun. bu ñu xoolee kalaaf bi man i faut ma wone. voilà tollu démb xam nga ne sama yaram moo tàng ndax xam nga ne du saar moo ma xawoon merloo moo taxoon wax yaa may dégg mais mais du yoon sax wax ji doon nekkoon luy bari waa ndax démb dama waroon na def stand by ñëw waaw tempo tempo ko dalal xelam bu ñëwee waaw ma jàpp ko daan ko facilement mais démb ni ma ñëwee ak ni ma taxee ah. du saane di signature naan dama gëdd mbër mu daw ah, ah non yaa tamit man góor moom nga amoon jékki-jékki combat bi de cinq jours ñu ne Ndiaga dafa blessé. Ah, lu war am la rek te mu rus dara loolu gënalul Ndiaga Ndiaga du préparé cinq mois de rey boppam. la mu dugg sa ragal man ki may ragal yàlla bindagul kooku man su ma ragalee sama borom góor lu toll fi tarfa tarfatal ay rek nañ dagg affaire bi xam ne nekkatuma ko. dóor fu may daane. ah àll bi tey ngeen si àll bi de. non benn yoon lañ bëre fii nii bii la woon. moom lañ jox victoire par par avertissement Doudou Sané mënu maa daan coow lay fi nekk rek te boobu man pare wu ma quoi dama doon mer rek damay doon jékki-jékki toog sama benn gaal copain bu ñu añee pare ma toogee affaire dëgër rek man ko fis nañ dem nañ dem gaal ba xari mat noonu laa ko tuddee woon. Mm. mais comme ñoom préparation bi ñuy def si ay lamb simple yi. Mm. bi si war su ma ko defee taxaw. Mm. mais daal dañu daal bu la nga bëgg a fas jàpp ki nga xamante ni mooy booy jaxaaw caxas caxasee ko xaar ñi nga xamante ni ñooy ay gargag ak ay duul sang parce que nee nga duul xaana mooy xorom bi garga mooy kaani pourquoi garga nekk kaani moo moo si gën a weex moom nga si gën a bàyyi xel wala lan la. du question bàyyi xel sax mais da see dàq moo ah, waaw da see dàq bëri quoi xaw duul sang moom daxay gis nañ ko nii rek ak kii mais xam-xam bi taxu ko bëri affaire buuxante lay kii tamit dama koy duma facilement. loolu leer ma ko duma du saare. ku dul du saare sama mooy saraxu kii bi yow mënoo ko duma di. non booy jaxaw moom wax dëgg yàlla dama ko ñeewantal sax échange yi nii. Eh, yow sama njaga arrête bàyyi si njaga defal naa ko bàyyi si ngay def yow njaga géew gi amagoo benn point naan ak fi mu dal xam nga fi mu jugee hmm. noonu na ko yàlla dimbali mu dal fa gën nooy hmm. mais daa fekk koo xamante ne da doon préparé bay waaj kii affaire yi yàqu mu amaat beneen préparation mu war a ñëwaat. Hmm. moo tax day métti si moom. mooy jaxaw koor gi bu jàllee nga xam lépp dëgg la de. après koor gi luy xew. laay woral kay après koor gi yëpp moom laa li ma. ba tey yëngu. ma wooroon kay xamal ni booy jaxaa moom ci yow laa koy ndogoo bu ah, moom. benn xam nga Thiès en passant maa ngi nuyu sama mbokk yi nekk foofu xam nga Thiès moom ku ne xam na ni réew mi tey foo dem am fay mbokk. Hmm. ndax dëkk moo doxee noonu quoi. Hmm. waaw di nuyoowaale tamit waa Njanjaar sama dëkk maam di nuyaar waa Golbu Diop. Hmm. waaw di ziar waa Guy Sox. di waa Gétti waa Mbaba Garage. di nuyu sama benn xarit bari bagage sama lépp la. waaw moom moom mooy loolu. waa di ziar waa Mbir. di ziar waa Gab Gaawaan. xam nga ñooñu dafa am ay kilifa yoo xamante ne dañ fay nekk di di ma ñaanal te yàlla rek tax. ama seen fay. moo tax yu mel nii dañuy ah, jàll benn message rek. di leen ziar ñoom ñëpp nag. voilà. am na solo ngi noonu le 28 la incha allahu rabbi njaga doole Dour Sané yaakaar naa njaga doole booy jaxaaw. Dursane Garga caatu Yoff caatu Yaraax Ndiaye Tine Gammu Gueye yaakaar naa noonu la bis bi tëddee Aline Seye war a bëre ki nga xamante ni mooy Coins loolu yaakaar naa la 28 la incha allah rabi ñu fas yéene si ànd Gaston production bu ñu waree si jàmm yàlla nañu ko fekk ak jàmm. Alboury Jacob war nañu si bëri aussi tamit mais yaakaar naa actuellement ni làmb gis nga njëkk lu muy doxee. noo gisee làmb ci jamono ji yaakaar naa macha allah innovation mi ngi am parce que bu ñu demee ba mbëri di sol ay costume mel nii allah innovation mi ngi am. nga tamit làmb tamit dara sport noble quoi. Hmm. waaw sport bi sport noble la. Hmm. tey jii maanaam làmb tey hmm. maanaam comme comme bi quoi comme physique bi ni ngay ni ngay ni ngay habillé quoi moo xaw a souvent moo tax instant bu ñu si gisee yëfu comme comme comme affaire noobu lii rek am na ñoo xamante ne sax bëgguñ loolu mm-hmm. dañu jàpp mbër daa war a xajam mbër daa war a nekk loo xamante ne mooy loolu mais instant yi gars yi dañuy innové mm-hmm. ndax tamit kenn ku ne ak fi réew mi toll mm-hmm. réew mi fii la toll fi réew mi toll moo tax da nga war a ànd ak réew mi ni comme réew mi ni muy doxee nga ànd ak moom xam nga tamit lii dafa rafet makan initiative bi mu génneen nii ah ñu ñëw gaan jox ñëpp ay kos tey jii am na tey noo doon habillé woo comme maal di def affaire kii sax. moom li nga soloon keroog bi kenn xamul la woon. ah boo Baye la hmm. solo Baye Fall gi yaa ma gën man hmm. si lu ma nekk rek damay dem ba jeex. Hmm. man lu ma sentir laay def. man loolu mooy sama problème man xooluma. lu neex ma sàmba lu neex ma Demba. man bu ñëpp tey ñëpp teewoon sol kos. ma jël kos bi dama si teg garaan mbubb damay ñëw def ko quoi lijjantu ma. ay nii wala naa. yaa may dégg waaw loolu kenn weddiwu ko doo dama leen liggéey nit ñi nit ñi la bëgg hmm. nit ñi bëgg tey jii ñoo tax ngay reyante hmm. yaa may dégg ndax ñi la bëgg tey fii kenn bañul kenn sax hmm. ndax ñun ñëpp ñoo far mais nit ku ne tey jii kenn ku ne boo amee nit kenn ku la bëgg rek war ngaa loo doon def rek war nga ko mën a yokk mille fois ngir kooku quoi yaa may dégg voilà mais tey jii doo doomu aadama kenn ku ne ak sa comportement man tey li ma sentir rek laa xam ne su ma ko defee damay nekk en l'aise mais boo waxee yow loo sentir ma fexe ba def loolu ngir nit ñi nit ñi ak lii te man su ma toogee du ma nekk en l'aise man bëgguma affaire yooyu quoi damay bëgg tey ji kenn ko ne tey lu may def rek ma toog nekk si en l'aise carrément ñoo xamante ne lii njagam ko def njagam nga en l'aise jërëjëf mhm. boo jaxaw bu bëree nga daan ko bu xeexee nga duma ko loolu nga wax bu soobee yàlla day am dina yomb maa ko mun maa ko dool day yomb si man si côté bépp hmm. man lu ma bëgg lu ma bëgg dama koy def man dama fi nekk bëgg daal sa yoon nekk su mais yow daal li nga bëgg ngay imposé man sama yoon newu ci ay la booy jaxaw lu la indeeg ñii mel day moytu loolu seen problème la adversaire bi non loolu kenn weddiwu ko xaw bëri ñaara koy def yaa may dégg mais man damay ñëw def li nga xamante ne moom laa war a def macha allah bu soobee yaakaar naa sànq naa ko mu ni moom géejawaay moo ko moom moo ko téye am na fi combat mu guy gi boobu mu waxtu ko Jackson sa doomu ndey bu dàkkooree mu jël avance tey yóbbu ko ndax lu Jackson di wër woote géej waaye moom fi ëppale Mbassi Waala bu mu dëkk moom moo ko fa ëppale lan nga lan nga nga gisee kàddu Ada mel na instant dugg géej waaye daal. waaw Ada Fass est jeexalul. jeexalul comme ni mu jotoon encaissé. xaalisam waaw dama ragal daa teel a jeexal xam nga ay ah, ñoom mbayaar lañ quoi ñoom yaa ma gën a xam boo demee liñ ko joxoon instant yi carte na ko moom jeex Eh, li ngay wax nag fii di waxaat bugaat gaa yi joxaat ko avance suuf nangam sangam. même champion lañ ko koy nangul même mu ngi jël guy gi génn góosi guy gi de wax waxu Jackson moom daa bëgg a rey boppam xanaa mbir ma ñëpp ko fi bare ah, moom neexalul kenn esaay gaa yu bari fi doon dañ koy sóoraale bu fekkee daa am luy ñux wala looy ñax-ñaxal boo nga bëgg dugg si mbir ma mii hmm. lu ñeexu ñeme kenn de dañ koy nuyu à passage Jackson waaw suñu frère di ko ñaanal yàlla yàlla na am continuation boo xamante ne mooy loolu mu ngi si dynamique baax yàlla na ko suñu borom suturaal waaw. mais lu tax gars yi di bàyyi xel Birima Birima Birima Birima tolluwul ni mbir yi. Euh, Ndiaga bala wax day dóore <laughs> man mii la wax gars yi bàyyi bàyyi man kalaaf bee sax instant yii nii. day dóore làmb ji booy dóore gars yi la fi bàyyi de. parce eh. que yéen ci man mii dóore yu métti moo taxoon ñëpp ba fa fi. mais kuy dóore kuy bëree garabam de. voilà kuy bëree. ah day bëree ah day bëree xeex bëri mënut a ànd ak ay duma. yaa may dégg. tey jii ki dàq bëri si làmb ji bu fi ñëwoon gars yi dóor ko yëngal yuur yi ba yuur yi tàng. Mm-hmm. balaa muy xalaat fayu gars yi nax ko naan ko. kon daal da nga koy dawloo da dawal Jackson nii. non non non ah Jackson daa baax ci Jackson day mën a Arafas. non Arafas laa moom dawal Jackson parce que mu la dégg dafa mel ni. Ah, ah, dugg Arafas dugg si. Arafas Jackson du moromam de barke bu duggee. teg loolu la mooy Jackson du moromam. Jackson ko mën fuuf maanaam coowu làmb mën na leen boole nii rek coowu làmb mais loolu ndox mu seet lay nekk si Jackson. nañu waxante dëgg non non non loolu moom sa waay loolu moom ñi nga xamante ne ñooy saan làmb di suivre ñëpp xam nañ ko ndax ay nitu milieu ak ñoo xam ne ay nitu milieu bokkuñu ko non non nga toog fi di vaccin jàmbur non dafa nag attends bëgguma fi bëgguma fi toog di dugg si vie privée jàmbur. bàyyi li ngay def Ada Fass Jackson làmb mën na leen boole parce que boo bu dee làmb rek moment bi ñu toll nii Ada Fass bul fàttali ne guy gi la jël. dugguma si vie privée kenn mais nit ku ne boo defee sa lu ne weng yaa def sa lu ne weng quoi yaa may dégg ah. man dugguma si biir caay Ada Fass fréquenté wu ma ko. xaw ma non non non man yooyu dawul sama yaram man la man réew mi réew mi laa la wax. Hmm. réew mi ñu nekk nii. aw ma fenn sens interdit. boo ko defee barki yonent bi laa la wax billaahi wallaahi wa taala aw ma sens interdit fenn. sama koñu adversaire su ma xamoon soxla may dem dox ko man aw ma problème boobu ndax xam li problème bi. Hmm. kenn ku ne seen bundu kër seen 1 mètre. ah bu la xësee romb laa la wax sa koñ ba lan nga fa moom. ay kii man yooyu néew ma si de. man non non man yooyu man sa waay dama laa ku baax. man dinaa la romb dem ngay daw di mag foo may koj man damaa ñàkkee noonu fayda wala man dama di damay benn benn benn deux pièces réew mi man yow man dafay taxawee taxawaay boobu man dégloo ma de man sama assurance ak sama barki leeru alxuraan sama assurance sama garanti loolu ci man la nekk man dama ànd ak nit sax nga naan ma man bàyyi leen ko mu ñëw laay wax ñun ay ñun ay góor yàlla lañ de réew mi fan lañu war am sens interdit Fass xanaa. Fass lu ma fay tere la Fass Fass moo fa mën a am sans interdit. borom aada Fass. waaye aada Fass ñeneen ñi nga ëpp doole ëpp kii sax mënuñu ma ñu Fass mais kay ëpp coow. coow mooy lan. lu ko yàlla may. coow mooy lan dañu koy nangul waaye coow mooy lan coow mooy ba ma dox soo su ma soxla benn booy di ma wax la nga ñëw sama kanam di am di bu la neexee nag mën naa la romb nga sànni say xeer wala nga nekk si commentaire yi wax la neex mais njaga di dox soxlaam nii di kii nga woo ko di ko kii loolu doo ko dolli sa àdduna gaa yi nee na bu ñu la gisee démb dañu jàppoon sax njëkk moom mariage la jëm parce que li nga cos bi nga sol mosuñu gis nga sol cos bu mel noonu loolu looy wax gaa yi commenté man ku ne xam ne ne élément garde corps rapproché la mm-hmm. waaw xam nga man yàgg naa ànd ak ay ministre ay gars yi di génn kos sama yëf la quoi mm-hmm. boo gisee ni ma solee kos ak gars yi diñ nekkee xam nga ni kos nekkuma si gan quoi. yaa may dégg ndax ñun tey jii ñun gaari koor yi rek ñoom ñooy jël kos boo xamante ne day jar 500000 def ko tëni mm-hmm. ñun bu ñu ko solee tëni lañ koy jàppee mm-hmm. xam nga tey ñoo xam te tey bu ñu gisee ko sol kos mm-hmm. dañuy yaakaar ne lii sañse la lii lii wala laa mais ñun yaay sol yaay sol kos nekk si ginnaaw VIP bi ànd ak moom muy taw nga xuus ak moom si taw bi nga dugg si ay poro poro si taw bi lépp nga koy def ndax métier moo koy laaj yàgg nañoo def loolu quoi benn ñaar sol nañ kos teg tali bi di daw diggante fii ak Thiès ay daw yu métti yoo xamante ne mooy loolu dañu ànd ak suñu militant te ñoom dañoo patrie ñu ànd ak ñoom ci oto yi di kii te boobu ñëpp ay kos lañu sol ñun loolu nekkul gan si ñun quoi moo tax gis nga démb bi ma soloo damaa génne woo ko mel ni sama patron papa mu ñëw xool njagal lii baax na lii baax na tekk montre bu seer jox ma dama am dama teg signature ba ñëw kii Pape Fall moom ma ko jox di ñaanal yàlla yaayam yàlla bàyyi ko fa suñ kanam kanam suñu yaay suñu xarit ak sërëm yi nga xamante ne ñoom la fi dese papa borom baax la billaahi kooku moom maak moom lañuy nur ñaar seeti kenn quoi sama frère la awma fayam si côté bi yëpp mu ngi taxaw ndax moom day awee lu rafet quoi ndax sama signature mu njëkk ba ma ko jógee def moom moom ma njëkk a ma ñibbisee rek woo ma lu ne wax ma ko. non keroog gaa ngi mel làmb la. dañuy làmb bàyyi yi ngay def nag njaga nga xam ni nga xam ni champion nga ndaanaan nga dafa am ñu lay suivre. mais dañuy làmb tamit. sa waay ñun dañuy làmb xam nga tamit làmb nag sa waay. làmb lañ wax quoi. Mm-hmm. làmb nekkul loo xamante ne ay yëfi tubaab la quoi. dañuy làmb sëriñ. waaw sëriñ waa gis nga di woowaat gars yi rek. Mm-hmm. di waxaat waa Guèye waaye waa ku tamit suñu grand Guèye Ndiaye. Mm-hmm. waaw kooku moom waa mention spéciale quoi. Mm-hmm. ndax ku mel ni Modou mbay suñu grand suñu lépp moo ñu boole moom démb. Mm-hmm. ñu woo ko si tele bi bi pare woo nañ téléphone. kooku amuñ fayam ndax ñoom loolu la ñuy xaar si ñoom. Mm-hmm. ndax tamit ñun géejewaay fi dañ fi xaw a manqué jàppale. ndax fii mais tamit di ziar tamit samay coach wala waroon njëkkee lañ leen jëf seen wàccuwaay bu baax a baax xaw ma seen fay. suñu papa El Hadj Mbiis suñu grand Mbiis ñoom ñoo ñuy jàppale si écrit bi. suñu per Gomez. mooy pas boxeur bi salle bi ñu entraîné pro fitness coach si jim ñu koy ziar ko jox wàccu waayam fil fitness Philippe ñu koy ziar di ko jox wàccu waayam mooy salle bi ne marche maam jaara suñu salle musculation la suñu lépp la voilà sa salle bi di ziar gars yëpp waa ah, di ziar ñëpp ñoo xamante dañuy jàppale mais ku si mel ni tamit sama waa koñ sama mafia yi mafia jobal bi mafia corniche bi ak mafia Baye Fall yi boo si mel ni maama ñoom Abdallah booy mu limee damay juum ngañ sëñ Fallou su ma limee damay juum samay frère ak waa rond-point Mor Fadam Baye yi nga xam ne ñoo nekk foofu waa atelier Baye Mbaye mm. atelier Souleymane atelier Jabel sama copain mm. ñoom ñooy borom deux roues yi ku si mel ni suñu papa Ousseynou Touré mm. dañ leen di bëggee bu baax a baax ndax ñooñu li ñuy sonn si ñun Moustapha Seck di ziar tamit sama waa place waa place Diawara sama père bi jaay foofu ci si père naa la Seck di ko ziar di ko jox wàcc waayam waa di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi loolu di ziar sama benn xarit bu nekk Europe aatu ñang sama xarit di ñaanal yàlla papaam njaga ñang yàlla bàyyi ko fi guddal fanam loolu di ziar sama copain Xaadim Jóob borom Italie temps yi ñëw na mu ngi seetu waa di ko ñaanal yàlla mu seetoog jàmm rek waaw ndax tamit instant yi moom mu ngi si linde meelam quoi mm-hmm. di ko ziar bu baax baax di ko jox wàccu waayam ku si mel ni tamit sama pro yi may àndal mm-hmm. ku si mel ni aan sama fils Mamadou Moustapha baay dama leen di ziar leen jox seen wàccaay ndax aw seen fay. Mm-hmm. dañ may taxaw dañ may waxtaan ak man di ma di wax ak man ci loo xamante ne da avancé loo. voilà ku si mel ni tamit kër yaay mi faal cosmétique Sidi Baara. Mm-hmm. amuñu fayam. Boubacar bitig Guana sama xarit la. Mm-hmm. sama lépp la. lu ma soxla mu taxaw si. kooku amuñu fayam di nuyu tamit sama mag. sama mag boo xamante ne mën naa ne mooy sama lépp tey fii nii. waaw mooy sama mag boo xamante ne mooy Lamine. mooy moo nekk ci kër gi di ziar tamit suñu xalifa sama xalifa papa bi Pape Diop mooy suñu taawu kër di ziar sama famille njóobeen gi yëpp ma kenn di ziar suñu famille bi nekk Fatick ñoom Baye Ginaar ak ñoom su Souley Baba Cheikh sama doom baay yooyu yëpp maa ngi leen di ziar leen jox seen wàcc waaye waa kër Ndiallo Ousseynou ak doom yi fa nekk ak waa garage am amuñ seen fay di nuyu sama waa garage mécanicien yëpp nag waaw mais gis nga xam nga tamit xel day fott maa ngi nuy suñu waa garage mécanicien yëpp ndax man ouvrier laa fépp ouvrier nekk waa garage dal jàmm garage bi Grand Médine ñoom Cheikh golo gi ñoo fa nekk ak ñoom socc sama gars yi ñoom Boy Séeréer gars yëpp maa ngi leen nuyu ñu jox seen wàcc waaye waa Yoff atelier laay ñang fi ma jàngee métier maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp leen jox seen wàcc waaye bàyyi ma fenn ak waa ancien piste ba hmm. waa place waa Colobane waa Difoncé sama gars yi nekk Difoncé chaque jour dama leen di fàtte te loolu erreur la sama gars yi nekk Difoncé ñoom Mahfouz barki yeneen jàll bi loolu nekkul loo xamante ne dañ koy kii mais léeg-léeg xel mooy fott mais ñooñu suñu lépp lañ waa Difoncé ma fi sama ma fi waa Difoncé ñoom Mahfouz gars yi nekk si Jalba aw ma seen fay feeraayir na foofu ak ñoom Mbaye Difoncé ak gaayam yi ñoom Tafa Thiam ah ak ñoom kii waay Mbaye Difoncé Tafa am ak ñoom Fallou sama gaa yëpp daal aw ma seen fay quoi maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp leen jox seen wàccuwaay di leen wax nag maa ngi wàcc bu soobee yàlla yéen ñëpp le 28 maa ngi jox rendez bu gaa yëpp nañ ñëw nga xamante ne li amoon passé na li suñu kanam mooy dàq rafet na am leen jàmm jërëjëf ngi noonu ñu comprendre ko parce que mbër bu te tolloo ci combat macha allah day woote ñi nga xamante ni dañ koy jàppale ñi nga xamante ni ñooy ànd ak moom stade daal di taaral bile bis kon jërëjëf Ndiaga waaye jërëjëf euh, ki nga xamante ni mooy Makan production ñoom ñu indil bile clave waaye Kalidou mënuma dem dafal nangi damay nuyu Cheikh Katar Pirara ah, Cheikh Ndeye Badiane ñu ngi foofu si géej waaye maa ngi leen di kontaane bu baax a baax ah, Ndeye Badiane ak euh, Cheikh di jëkkëram ñoo leen di kontaane ak Fallou Fallou Diagne bu Jackson ñooñu suñu ay nit nañu ñu ngi leen di kontaane di leen jaajëfal dañuy topp seen làmb te nit ku nekk nag ki lay rek mooy sa mbokk kon maa leen di ñaanal ngeen yokk abonné yi mbokk yi te ngeen toog am si ñun confiance te xam ne lépp li nga xam ne liggéey la rek équipe bi mën nañu i indil si bàgg Seydina Mohamed liiru Diagne liiru Diagne liiru ah dégg naa foofu takk nga fa ñaareel di dëkk boobu non bàyyi si koy def liiru Diagne liiru ba mu ñibbisee waaw ah. yaa may dégg ba mu ñibbisee tombeek sama combat kii moom ñu ko woo téléphone yàlla xam na ko mu ñibbisee. takk see ñaar non loolu dara wóoru ma si <laughs> man ndax ko. yaa ma ko wax de yaa <laughs> ko nga nekk dama daan liiru jaañ ba mu ñibbisee moomu njëkk a woo téléphone. yaa may dégg masawu ma kii ma tatagal ma tamit ndax tamit loolu tamit ku reconnaissant moo koy def quoi. wane ne tey ñun ñëpp ay doom lañ. moo tax mu def loolu tamit liiru dañ lay appuyer dañ lay dañ dañ lay encourager di la di la gën a ñaaxaat di la gën a dénkaat suñu bopp. yow suñu grand nga. yow ku ne xam na ni drapeau ga yow nga yor. ku mel ni tamit Pape Mama Fall dañ koy xaar suñu gaañ la suñu lépp la. ñu ngi koy xaar ñu ngi koy xaarandi ñu ngi koy kii. yaa may dégg ñooñu amuñ seen fay quoi ku ci mel ni monsieur le ministre Lat Diop. ñooñu xel waru leen di fàtte. Mm-hmm. waaw mais affaire yi léeg mm-hmm. boo limee rek. Mm-hmm. doo motal. mais monsieur le ministre la Diop ñun xam nga ni ñun sa njaboot lañ ak lu mun a xew. combat bi kalaaf bi dañ la siy soxla. waaw Abdou Khafor Touré. ah borom Kosera. Pa bi nekk foofu noonu. dañ koy soxla gars yi jàpp leen si te xamante ne géewaay lañ nekk. Guèye Ndiaye yaay sama lépp. billaay wallaay wa